mooy coranique les grands secrets ñu ci seddoo ak yéen yenn ci secret alquran yi nga xam ne dana yombal dunu doomu aadama yëpp ci zaahir ak ci baatin tey nag dañ leen a indiloon secret bi nga xam ne secret bu doy war la secret bu yéeme sax mu jëm ci wàllu dëddale dëddale maanaam ñaari nit ba dootuñ defati nenn ci àddina dootuñ masa àndati ci àddina moo xam muy góor ak jigéen moo xam muy góor ak góor moo xam muy jigéen ak jigéen ndax léegoo-léeg amul ànd boo xam ne mu ngi am rekk te ñàkk tàggoo du am seen biir waaye nag léegoo-léeg dana am yenn ànd yoo xam ne di ko yàq daganul ci lislaam daganul ci diine daganul ci sariya te kenn mën mënu koo layoo ba daganal ko waaw li nga xam ne nag moo joo tax a jóg secret bii ndax li tax ñu leen ni ñaax ci loolu yàgg nañoo dugal secret wàllu dëddale waaye secret bi dafa nekk secret boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy def doomu aadama na nekk sec loo xam ne ki nga koy def bëggatoo ñoom ñaar ñu àndati ci àddina ndaxte amatul dellu ginnaaw ñoom ñaar dootuñu ànd ci mukk ci àddina moo xam fekkee nit ak soxnaam nga ko def moo xam fekkee sa borom kër ak sa wujju ko def moo xam fekkee sa doom ak ki muy àndal nga ko def moo xam sa doom danga ko gis muy ànd ak ku bon nga def ko ko ak kooku lu mu a baax baax dootuñ mas a àndati ci àddina déedéet waaye nag ñu leen di ñaax ne secret yi ñu fiy dugal dugaluñ fi secret ngir di jëflante ak kenn ngir di yàqat ak kenn déedéet képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo secret bii jëfandikoo ko ngir luy jariñ ndax liy jariñ nekkut sa boroom kër am soxna nga bëgg mu yàqook soxna boobu lu rek intéressé ci nga ne na nga def secret bi joxuñ la ci ndigal yow mi def loolu yow mi nga xam ne gis nga diggante ñaar ñoo xam ne ànd nañ mu baax lool ñoom ñaar kenn ku ci nekk di gis sa bopp ci ànd bi nga def jëkkër def secret bi ngir bëgg a yàq loolu joxuñ la ci ndigal te nit ki lépp lu mu amul isni lepp lu amul ndigal bu ko defé du ci am benn lu mu bëgg waaye képp ko xamné gis nga né ñaar ñi and loraange lay indi ci yow loraange lay indi ci ñoom loraange wala loraange lay indi ci kenn ci ñoom waye amna na kenn ki lo xamné def na ko ba mur beuti ki nga xamné mom nga jégué ndax légo lég di nga am borom kër bo xamné ci nekkal mo xam mu nekk sa wujju mo xam mu nekk mi liggéey mo xam ku mënti nekk def na ko loo xam ne muur na ay bëtam ba du gis loraange boo xam ne dafay jëm ci moom kooku nga yàq seen diggante ngir seen borom kër mën a nekk ci jàmm dara new ci léegoo léeg itam yow ko soxna si yow mi nga xam ne dangaa am sa boroom kër ngeen di mun di jàppalante nekk lu mat juróom benn at fukki at ba ñaar fukki at ba am ay njaboot yu mag léegoo léeg benn xale bu ndaw dana ñëw bëgg dugg ci diggante boobu bëgg koo yàq wala léegoo léegi nga nekk ci sëy ci biir ci sa biir néegu sëy nit ñëw moo xam sa wujju la wala koo xam ne du sa wujju waaye ca kër ga la dëkk ñëw dugg sa digganteeg sa boroom kër yàq sa digganteeg sa boroom kër ba mënatoo am ci moom dara wa ilaa nit ñëw fekk ñaari nit ñoo xam ne ñi ngi ànd ci jàmm moo xam nga nekk góor di nopp jigéen bëgg koo takk bëgg koo def soxna te dara yitteelu ci lu dul fulla am beneen góor bu jugee fële ñëw dara liggéey itteelu ko ci lu may jaay la doole ci wàllu alal ba takk ndaw soosu wa ilaa nit ñi itam léegoo léeg danañuy gis ñaari nit ñoo xam ne dañuy ànd ki nga xam ne moom ngay àndal dana am beneen xarit boo xam ne du diggante boobu du ko neex lu ci yittee rek mooy yàq yow mi nga xam nag gis nga ne ki ne moom nga nekkal moo xam sa boroom kër wala sa soxna ki muy àndal neexu la ki muy àndal neexu la te doxul ci dara lu may yàqal la sa diggante ak moom boo defee secret bii diggante sa boroom kër ak sa wujju woowu diggante sa boroom kër ak jigéen gi muy gim gi muy waaj a takk dootuñu àndati mu ko ci àddina nit mën ta wax bañ ànd ak lu ngeen dem ba juboo juboo ànd moom dootu ci bokkati ci àddina ànd dootu ci bokkati mukk ci àddina mukk secret bi boo ko xasee def ñaar ñi nga dëddale ñu wax leen ko mu leer dootuñu àndati mukk ci àddina comme ni ngeen ko gisee secret bi ñu ngi ko liggéey ci tabbat yadaa abi lahab abi lahab ñëpp xam nañ ni meloon noonoo gi noonoo woon yonent bi sallallahu alayhi wa xamoon nañ ko ba am na sax ñoo xam ne dañuy maanaam nekku ne dafa ñàkk dagan nekku ne dafa xaraam nekku ne dañ koo sib waaye am na ñoo xam ne dañuy wax ne tàmmuñ di julli di jàng saar woowu tàmmuñ ko waxuñ na nag tabbat yadaa dafa xaraama jullee waxuñ loolu waxuñ na tabbat yadaa dafa dañ koo sib ndax alquran la saar la comme yeneen saar yi waaye am na ci yenn boroom xam-xam yenn ñoo xam ne ay wàllu yàlla lañ dañ ne soppuñ ko ci julli ñoom waxuñ ne ne soppuñ ko ci julli naturellement déedéet soppuñ ko ci julli ñoom ñoom lañ wax ndax abu lahab moom nga am ne yàlla mi mi ngi ko ci tëkku di ko ci ŋàññi ndax bañ du doogum duna woon euh, euh, bañ gum bañoon yonent bi sallallahu alayhi wa yow mi nga xam ne nag yaa jëfandikoo secret bi insha allahu rabbihi ñaar ñi nga xam ne ñoom nga dëddale dootuñ mas a àndati ci àddina waaye nag li wax ci suñ njëlbéen ni wax moom la ñuy waxaat ci suñu mujjoon ñu wax te duñ mës a bàyyi di ko wax mooy jëfandikoo wuñ secret joxuñ secret kenn ngir muy defante ak kenn ngir mu toog rek di yàq diggante bu ko neex di dëggal ñu ko neex déedéet képp kuy def loolu amoo ci ndigal ci secret bi secret bi pour bind ko lu yomb la da ngay bind kun bismillahi rahmaani rahim moom ngay bind nga tijji ko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim soo noppee nga bind saaru tabbat yadaa waaye da ngay ubbi mii mi da ubbi mii mi boo koy bind nag daa nga koy bindee daa suukar daa suukar boo demee ci ñiy jaay ñi jàngkat daara yu mag yi am nañ ko walla ñi nga xam ne dañuy faral di bind bind du fayu am nañ ko nga bind fexe ñu bindal la ko ak daa suukar buñ ko bindee da leen di wax ne ñu ubbil la miim yi miim yi nekk ci saar bi yëpp dañ lay ubbil juróom-ñaari miim la juroom ñaari mi moo nekk ci tabbat yada soo ko ubbee da ngay bind sa tur tur ki nga xam ne moom nga bëgg a dëdale moom ngay bind ci suuf bind tur ki nga xam ne moom nga bëgg mu bàyyi ko moo xam sa borom kër sa borom kër moom ngay bind suuf fekkee ki la gën a jege moom mooy nekk ci kaw ki nga xam ne moom nga bëgg sa borom kër bàyyi ko moom nga bëgg sa soxna bàyyi ko moom nga bëgg sa patron bàyyi ko moom nga bëgg sa ga bàyyi ko turam ngay bind ci suuf soo noppee bu da nga leen di wax ne buñ ko suufee buñ bindee lii yëpp ba mu noppi saar bi mi ngi am juróom-ñaari miim dañuy bind saar bi juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon lañ koy bind mi ngi am quarante neuf miim lay nekk lépp sept fois sept quarante neuf lay nekk soo noppee nga bind tur bi nga xam ne ki nga xam ne moom la gën a jege moo xam ne sa borom kër la wala ku mënti nekk ki nga xam ne moom la jege sa intérêt sa intérêt ci moom la nekk turam ngay bind ci kaw waaye booy bind turu ki nga xam ne moom nga bëgg mu bàyyi da ngay juutal fooy bi gis nga ñi ngi leen ko defal noonu ni feles bi mel noonu lay turu keneen ki di jublu maanaam buñ bokk fuñ jëm dangay ngay bind kii mu jëm fi nga xam ne maanaam moom mooy droite ngay jël ëlbëti fooy bi bindaat ko mu jëm droite wala nga ñàkk koo ëlbëti bind ko mu jëm gauche boo ko ëlbatee ci droite ba lay jëm miim yëpp noonu nga koy defee ba mu yegg nga bind ko juróom-ñaari yoon soo noppee nga tëj ko ak salaatu na bi comme ni ngeen ko gisee nii boo noppee maanaam da koy suufe waxoon naa la ne la ki nga xam ne moo la koy defal bu mu ko suufee ak suuf da ngay ut kaani moom ngay ut nga dëbb ko ba mokk bu mu am nag benn mbir moo xam ne mi ngi ci moo xam jimbo bu mu am dara kaani kese kaani gu mokk ngay ut. kaani gu gu gu euh, doom yi moom ngay ut nga dëbb ko ba mu mokk ba mu nekk sunguf nga nga su nga suufee ko ko maanaam nga def ko ci biir kaw kayit gi loolu nag bala ngaa bind moom ngay ut kaani gi ba noppi nga bind ko dugal tur yëpp soo noppee nga suufee ko suufee ko ndax ñi nga xam ne ñooy bindee daa suukar bala ñoo teg mbind bi dañ koy suufee ndax bu mu kole yow nag dangay wax ci la koy bindal na ko bu mu ko suufee da nga koy jox kaani moom la koy suufee moom la koy suufee bu ko suufee da nga koy lem ngay lem kayit gi ba mu mat li nga xam ne maanaam moom mooy xaati euh, juróom-ñaari tabbat yooyu nga xam ne suufee nga ko ak kaani dugal tuur ñi nga xam ne ñoom nga bëgg ñu dëddale ci miim yi nekk ci biir yëpp soo noppee da ngay lem kayit gi da koy lem boo ko lemee insha allahu rabbi si nga suul ko da koy suul nga bàyyi ko noonu li nga xam ne maanaam moom mooy li nga xam ne maanaam moom ngay defaat dangay ut li nga xam ne itam moom mooy comme ni nga ko bindee nii juróom-ñaari euh, juróom-ñaari yooyu da nga koy da koy bind nga suul ko soo noppee comme ni ñu leen ko waxee da ngay bindaat beneen. boo xam ne benn tabbat yi daa kisa lay nekk nga ubbiwaat miim yi nga suufee ko comme ni ñu la ko waxee ak kaani nga koy suufee bu ci def suuf soo noppee nga lem ko nga sànni ko ci géej soo noppee da koy lem nga sànni ko ci géej géej nga koy sànni wala foo xam ne ndox la moo xam muy dexe moo xam muy fële fu manti nekk nga sànni ko fa soo noppee sa loxo yi boo ko ki nga xam ne moom moo koy sànni bu ko sànnee ba ñëw da koy suul continuer sànni ko bu ko sànnee ba noppi dafay raxas loxoom ba mu set loxoom yooyu na ko jël raxasin moom moom nga xam ne moom la raxas ci soo wala ci bool wala fu mu ko mënta raxas na ko jël mu sotti ko ci duus insha allahu rabbihi ñooñ nga xam ne moom la bëgg ñu tàqali kenn ku ci nekk dootoo nangoo gis sa morom mukk waxuma la ke waxuma la sa borom kër mooy bañ ci nga ki nga ko def de waxuma la sa sa wujj mooy bañ keneen ki waxuma la sa soxna mu nga bëgg koo tere xaritam bu bon bu koy yàqal bu koy tere sëy maanaam waxuma ne sa soxna mooy bàyyi sa xarit bu bon boobu xaritam bu bon boobu déedéet ñoom ñaar kenn dootu nangu te gisante sa morom moo tax secret bi dafa garaaw joxuñ ci kenn ndigal koy yàq képp kuy yàq rek joxuñ la ko di wax ne képp koo xam ne mën nga koo defal sa bopp comme ni leen yàgg wax ñi ngi lay ñaan nga defal ko sa bopp bu ñu oo ndax comme li ñu lay yàgg wax jëfandikoo wuñ joxe wuñ fi secret ngir liggéey ak kenn joxe wuñ fi secret ngir di profité ci soxlaay jàmbur yi ndax suñu wërsëg suñu àddina nekkul ci seeni soxla ci loxo yàlla la nekk te secret yi ñu leen di jox na ngeen xam ne ñun tamit moomuñ ko ndax ci nit lañ koy jëlee rek joxe ko kon ku ko mën a defal sa bopp defal ko sa bopp bu ñu oo liñ ci jëri liñ ci bëgg nga xam ne moo ci nekk suñu intérêt ñun mooy ngeen jariñu ñëpp ne ci jàmm moo tax képp koo xam ne mën nga koo defaral sa bopp ñu ngi lay ñaan nga defaral ko sa bopp képp ku ko mënta defaral sa bopp te am na mbokk moo jege am na taalibi boo jege boo xam ne sa moromi jullit la boo ko joxee mën na la ko bindal jox ko ko mu bindal la ko li nga xam ne moom nga yëkkati yi ko teg suñu loxo buñ la ko defaree na nga ko jox na nga ko koy na ko yëkkati jox ko ko moom mu bindal la ko képp koo xam ne nag amoo ko bindal te mënoo ko itam boo jokkoo ak ñun incha allahu rabbi danañ jëflante ak yéen bu baax a baax a baax di wax na képp koo xam ne bëgg nga am ay leeral ci vidéo yi ñu dugal ak vidéo bii ñu dugal tey mën ngaa jokkoo ak ñun ci plus 221 77 286 38 79 plus 221 77 286 38 79 ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi leen di ñaan yàlla di yàlla wax ne di ñaan yàlla yal yàlla barkeel barkeel seeni mbir barkeel seeni yëngatu ñi ngi jëm ci tabaski yal yàlla yombal seeni mbir yombal suñuy mbir yal na yàlla yombal ñi war a am xar na yàlla yombalal leen ko ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lali hôpital yi yal na yàlla fëgg seen bopp ñu dem ci seeni activité ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi yàlla fëgg jëlee leen fa buñ fa delluwaat li des ci seen dund ñi nga xam ne ñi ngi yor ay bor te njaboot teg leen ko yàlla na ko yàlla teggi cépp ko xam ne yaa ngi nekk ci ay nattu yaa ngi nekk ci ay tolof tolof ñee nañ la ndax lu tax yàlla boole na la ci ay ñoñam ndax yàlla kum mu du la teg nattu waaye nag ñu ngi lay ñaanal ne yàlla na ko yàlla teggil yàlla na yàlla boole ñu ci séddale yu njëkk yi te yàlla bu ñu xañ mukk yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko yàlla def yàlla yàlla def jàmm Sénégal te def ko ci àddina bi yëpp ñu ngi sant ñi ngi gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.